mbokk yi xam ngeen ne buur yàlla tabaraka wa taala mu ngi ñuy wax ci téere bu tedd bi di suñu alquraanul karim la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante xéwali ma yokk ko waaye mu ngi wax bi léegi ci aaya ba nekk ci suratul ibrahim wa ataakum min kulli ma saaltumuh wa in taudu nicmatallahi la tuxsuha yàlla mooy buur ba nga xamante ne moo leen jox lépp li ngeen ko ñaan lépp li ngeen ko soxlaal jox na leen sax la ngeen ko ñaanul te xam na ne loolu dafa di la ngeen di soxla amul dara la yàlla xam ne di ngeen ko soxla yéen doomu aadama yi lu dul baaxee na leen ko jox na leen ko waaye ma bëgg firndeel ne doomu aadama bi bu fi nekkee di gémma lim xéewal yee ko yàlla defal di ko mën a dajal ba tax na mu ne wa in tauddu nicmatallah gis ngeen mbokk yi yàlla jël na xéwali idaafa ko ci boppam ne bu ngeen fi nekkee di géem a sant xéwalu yàlla yi kon xéewal ba doomu aadama bi nekkee amul ma sàmbaaka ko jox amul ma dembaaka ko jox walla jinne wala savant wala buxaaba amul kenn ko ko jox ku yàlla mi ko bind moo tax yàlla jël xéewal woowu mu tuddee ko ni'matallah xéewalu yàlla yi wa in ta'uddu bu dee da ngeen fi nekk naan da ngeen di géem a xayma di géem a lim ni'matallahi xéewalu yàlla yi ci yéen laa tuxsuuha bu ngeen ko peeg du ngeen ko matal du ko dajal dangeen ko dut mën a lim sax ba ngeen di ko dajal ba tax na buur yàlla tëjee aaya bi ne inna li insaana la daluman kafaar doomu aadama bi da di jëmm joo xamante ne day dëkkee di tooñ boppam ci la mu war a nekkee digganteem ak xéewalu yàlla woowu waaye da di jëmm joo xamante ne day dëkkee di weddi xéewalu yàlla ya nga xamante ne moom la ko buur yàlla xéewal ndax xéewalu yàlla yi léegi-léegi mu jëfal mu defal ko doomu aadama bi doomu aadama bi jàllar beku di sant keneen ko dut yàlla kon xeetu weddi xéebalu yàlla la su ko defee loolu mooy la aaya bi di tekki su ko defee ñu ñaan yàlla suñu borom mu boole ñu si ña nga xamante ne dañuy reconnaître xéewala mi ba tax na ñu di ko ci sant cant woowu noonu nag moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma yàlla doyloo mu yónnee ko ci xeet bi mu yónnee ko ci jaamaam mi li yuxrija annaasa min adh-dhulumati ila an ngir mu jëlee nit ñi ci yu bokkaale yàlla jëlee nit ñi ci yu ñàkk xam yàlla jëlee nit ñi ci yu topp seytaane yóbbu leen ci leeraayu wéttal yàlla ci leeraayu xam yàlla ci leeraayu xam-xam ak lépp loo xamante ne doomu aadama dina ko soxal wala doomu aadama bi soxal na ko ci dundam mu doon fa muy teg tànkam mu doon lumière boo xamante ne yonent bi moo ñëw ak lumière boobu jële doomu aadama yi ci lëndemaa yu àddina lëndemaa yu bokkaale yóbbu leen ci leeraa yu yàlla jëlee leen ci lëndëmaayu ñàkk xam yóbbu leen ci leeraayu xam-xam jëlee leen ci lëndëmaayu rëy yóbbu leen ci leeraayu modeste jëlee leen ci leeraayu jaahil yóbbu leen lëndëmaayu jaahil yóbbuleen ci leeraayu xam-xam su ko defee ndegem loolu mooy mission yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu ne xéwal bu mel ni nelaw bu leen ko yàlla yénkeewale ba ngeen si jëf la ngeen si jëfandikoo mel ni la ñu jëfandikoo waxtu si niiw ci ginnaaw rek yonent bi ne képp ku ci jóge ko jëfandikoo xewal woowu di nelaw na sant yàlla ni alhamdulillahi alladi mboolem xëytu cant yu kawe yi mboolem xëytu cant yu matale yi ñeel nañu yàlla ndax mooy buur bi nga xamante ne axyaana moo ma dundal baadama amatana gannaaw bu mu nammee ci sama jëmm ji dee bu ndaw te mooy nelaw bi ma doon def nii waaye nag ah wa ilayhi nushur ci moom la ñuy dellu gannaaw bu ñu sottilee dund bi wala gannaaw bu ñu noppee ci dund bi du dellu ci kenn duñu dellu fenn fu dul fa moom yàlla buur bi subhaanahu wa taala ba tax na yéen a ngi fàttaliku suñu waxtaan ya ñuy am ak yéen ci waxtu bi ci daara ji fii ci réew mi FM 97.5 ñu ngi taxawoon ak yéen suñu waxtaan yo weesu ci yóbbante bañ bëgg yóbbal jëmale ko ci ña askan bi yóbbante ngir ñu teewal leen ci pincum ndaw réew mi léegi nag ah ñu fas yéene continuer ki yéen di laayante biir ak ñooñu teewal askan wi ci pincum ndaw réew mi ndax suñu diine bi di islaam dadi diine laayante biir kenn ku nekk mën naa laaye biiram moromam kenn ku nekk mën na conseiller moromam ba tax na ñu ngi leen di conseiller di leen laaye biir ne nguur yàllaa koy joxe nguur yàllay tànn ci jaamaam yi mu am ñum ko dénk kon lañ leen dugg ci géeju alquran ñu dem xool ci suura ci aaja ba nga xamante ne moo nekk ci fu buur yàlla tabaraka wa di baaxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu muñ ci dund bi nga xamante ne moom nga nekk di dund waaye nag ñu ñu ngi koy yëbbante suñu mbokk ya ñu teewal ci pincum ndaw réew mi nañu muñ coono bi nga xamante ne moom lañu fay daj waaye nañu muñ privilège yi nga xamante ne dinañ ko fa fàggoo waaye nag gannaaw privilège yooyu ndegem lañ koy méngale mooy la war a dugg ci askan bi loolu war a dugg ci askan bi lu mu war a doon buñ ko méngaleeg privilège yooyu ba ñu jël privilège yi bàyyi lu ñaaw lu bon loo xamante ne bu duggee ci askan bi du doon la leen di du njariñ du doon lay gin ci askan bi ñu ngi leen di fàttali ne yàlla suñu borom dafa royloo suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daawud alayhi salaam moo tax mu ne ko ci aaya bi audu billahi min alsheytaani arrajim isbir ala maa yaquluun wadkur abdana daawud zul aydi innahu awwaab inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraaq sadaqallahu alazim mbokk yi aaya ba ñu yëkkati ni la ñu bëgg melale lenn ci jikk boo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko sant ngir mu jikkoo ko waaye ñu nit ñu di ko tànqee ci jikko yonent bi sallallahu alayhi di ko andi si pénc bi fii ci daara réew Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bi ngir ñu yóbbante ko suñu ndaw réew yañu teewal ci pencum ndaw réew mi su ko defee ñu di leen di yóbbante jikko joo xamante ne bur yàlla tabaraka wa taala moo sant yonentu bi ngir mu jikkoo ko te yàlla moo ñu ne wa in tutiuhu tahtadu bu ngeen royee yonentu bi topp ko ci jikko ngeen jub ngeen mucc ngen doon jëmm joo xamante ne seen léppay mujjee baax sallallahu alayhi wa sallam buur yàlla da ko ne na nga tegtaloo na nga roy na nga xeeñtu jéego yonentu yàlla daawuda alayhi salaam moo tax mu ne ko isbiru ala ma yaquluun yow yonent wi na nga muñ la ñuy wax sa ginnaaw na muñ la ñuy wax ci sa der kon yow député bi na muñ na nga sacrifice na nga jël na nga xamante ne mooy sabar di muñ nanga muñ coono bay gàll say loos jamono bi nga xamante ne yaa ngi nekk ci pencum ndaw réew mi ngir taxawee askan bi ci béréb bi nga xamante ne di nga jaay sa lal di nga jaay sa nelaw di nga jaay sa privilège yu bari yoo xamante ne dina doon bànneex ci yow waaye nga sacrifier ko nga jaay ko ngir taxawal askan wala yónne ci pencum ndaw réew mi di nga guddee ñib si di nga am loo xamante ne doo ko nekk ak say njaboot yooyu yëpp xiitu muñ la yoo xamante ne da nga koy muñ parce que da nga am ña la yónni dafa am ñu la fal dafa am ñu ne la toogal ñu béréb bi da nga war a ànd ak muñ boo xamante ne comme la yàlla wax yonent bi ne isbir na nga muñ ala ma yaquluun la ñuy wax ci sa der isbir na nga muñ ala ma yaquluun lépp lu ñuy wax ci sa der isbir na nga muñ ala ma yaquluun lépp lu ñuy wax sa ginnaaw isbir na nga muñ ala ma yaquluun lépp lu ñuy teg ci sa loos yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu ngi koy jëmale tamit ne député bi da nga war a muñ yow père de famille yow njiit bi yonent bi moo la ëpp dayoo yonent bi moo la gën a ëpp maqaama may ànd ak loolu buur yàlla tabaaraka wa taala da ko ne isbir na nga muñ ala ma yaquluun wax ci sa der saaga yeeg xaste beeg jiwu beeg wax yu amul bopp amul génn léegi léeg nga gis koo xamante ne dina génni baat ci gémmiñam loo xamante ne amul ci benn xam-xam amul ci benn argument amul ci benn loo xamante ne tegtal la buy tegtaloo ne kii la muy wax ni ci xam-xam la fondew léegi-léegi nga gis kàddu yooyu ñu jibale ko jëmale ko ci kenn ci njiit ñi waaye ànd ak loolu buur yàlla daf ne yonent bi ne wasbir aw isbir na nga muñ ala ca la nga xamante ne maa ñu ngi koy yaquluun di ko génnee sa gémmiñ di ko génnee seeni gémmiñ di la ko teg kon yow njiit yow député bi nanga nga muñ lépp lu ñuy wax ci sa der na mëñ yàlla ne yonent bi ne maa bëgg nag nga tegtaloo ci sama jaam joo xamante ne mooy nabillahi daawud alayhi salaam ànd ak loolu am na li ma ko defal waaye nag ah daa doon ko muñ waaw jox naa ko nguur jox naa ko privilège jox naa ko ay miracle ay kawteef yoo xamante ne amul kenn ku ko yàlla jox ci mbindaafoo ni alayhi salaam moo tax mu ne ko wadkur na nga fàttaliku jikko suma jaam ji nga xamante ne mooy abdana daawud di sama jaam di sama ndaw mu di daawud alayhi yàlla ne yenentu bi ne wadkur na nga fàttaliku abdana sama jaam joo xamante ne mooy daawuda mooy yenentu yàlla daawuda alayhi salaam dul aydi mu borom loxo bu yaatu mu borom xol bu yaatu mu borom xel bu yanj borom xel bu sell innahu naka moom daawuda alayhi salaam de daa lamboo jikko joo xamante ne awaab à chaque fois saa su ne day nangoo dellu fa boromam day nangoo doon jam joo xamante ne day nangul boromam ne jamam la te yàlla mooy ki ko moom te yàlla mooy boromam subhaanahu wa taala daawuda alayhi salaam li mu nekk lépp ànd xel bu yaatu la mu làmboo loxo bu yanj ya mu toogaale xel bu laab ba mu toogaale ci penc bi ànd ak loolu yëpp da di joo xamante ne yàlla da ko ne innahu naka moom de awaab da di jëmm joo xamante ne musuda tàqale ko di fàttali ko boromam musuda tàqale ko di nangul boromam ne jaamam la waaye yàlla mooy ki ko moom yàlla mooy boromam subhaanahu wa taala yàlla bëgg a wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inna saxarna jibaala maahu man yàlla maa ko tàggatal montagne yi daawuda alayhi salaam yàlla dana yenentu bi ne maa tàggatal yenentu yàlla daawuda alayhi salaam montagne yi maahu yusabbihna bil ashiyi wal ishraq ñuy àndandoor ak daawuda ñuy sàbbal yàlla ci ngoon ak ci fajar jamono bu jant bi di waaj a fenk pouvoir bi amul kenn ki ko yàlla jox ci mbindaafoonam yi waaye ndegem yàlla suñu borom tabaraka wa taala yàlla daawuda la ko jox alayhi salaam kon yow mi nga xamante ne yow la yàlla compal as toq ci nguuram mu gàlla ko sa loos ngalla waay yow it na nga géem muñ na nga géem muñ te nga géem a comprendre ne la nga ràngoo nii du sa midit du sa jàng du sa xam-xam xanaa du yàlla la ko yekkal ci sa dund bi rek nga war ko war a mën a ràngoo ba tax na na nga am compréhensif na nga am comprendre na nga comprendre doomu aadama yi seeni matadi nga xam ne ndomb tànk bu la yàlla gàll mooy nga taxawee leen ci seeni soxlaa nga taxawee leen ci seeni mëbit nga taxawee leen ci lépp loo xamante ne ndax yaa leen gën a jege nguur yaa leen gën a jege fu ñuy dogalee mbir yi su ko defee nga nekkal leen seen surga ndax loolu la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam xayru nnaasi xaadimuhum ki gën ci nit ñi mooy ki leen nangoo liggéeyal nga doon serviteur doomu aadama yi ngay servir nit ñi waaw bu ñu député rek nga jël bande vert jaune rouge nga daal di ko takk say ndigg di won nit ñi ne yow ñaa ñaafekat nga loolu naam symbole bu ñu mën a comprendre la mais na feeñ ci terrain bi na feeñ ci askan bi na feeñ ci gox bi na feeñ ci ña nga xamante ne ñoo la fal ña nga na feeñ ci ñi nga xamante ne ñoo am ci fa nga bokk yaakaar ju toll ni ba tax na ñu jox leen sa xob su ko defee nga teewal leen bërëb boobu bur yàlla ne inna saxarna jibaala maahu man yàlla ma tàggatal yonent yàlla daawuda ay montagne yoo xamante ne yu sabbix na dañuy ànd ak yonent yàlla daawuda ñuy sabbal seen borom bu daawuda di sabbal boromam muntax ñi dañuy ànd ak moom ñuy sabbal borom bi subhaanahu wa taala ci ngoon walla ishraq ak jamono bi nga xamante ne jant baa ngi waaj a fenk su ko defee yàlla tàggatal yonent yàlla daawuda la nga xamante ne mooy doj yow yàlla tàggatalu la doj yi ak loolu yonentu yàlla daawuda mu ngi nekk jaam boo xamante ne innahu awaab daf di jaam boo xamante ne daa nangul boromam ne jaamam dong la boole kook pouvoir ba ko yàlla jox yonent yàlla daawuda beewul yonent yàlla daawuda bu dee suñu jamono la mënees nañoo wax ne changé wut numéro yonent yàlla daawuda bu dee suñu jamono ji la dañu naan euh, defut otom vitre teintée yonent yàlla daawuda bu dee suñu jamono ji la dañ naan toxawul fuñ ko xamee foofu la mës dëkk lañ ko xamee loolu la doon jëfandikoo yonent yàlla daawuda sante wut portable sante wut numéro téléphone waaye ku ko woo jot ko yonent yàlla daawuda keroog ba yàlla jox ndomb tànk bi ni bi léegi yonent yàlla daawuda alayhi salaam musut ñu ko dara di ko ne sa liggéeyu ndey la wala ñaxu mbootaayu say sa wayjur bu jigéen la xeeti wax yooyu kenn musu koo wax yonent yàlla daawuda kon yow mi nga xamante ne yow la ñu jox ndombo tànk ju mel nii la nga nekkee nii ngalla waay na nga muñ baatu ginnaaw ya ngay dégg te nga fàttaliku royukaay ba yàlla royuloo yonent bi sallallahu alayhi wa di jaam ju baax nga xamante ni mooy nabiyullahi daawuda alayhi salaam yàlla ne innahu awaab daa musa nangu nangul yàlla ne jaamam ndong la daa musa accepté ne man jaamu yàlla dong te yàlla mooy sama borom ba tax na ba yàlla gisi lii ci doxalinu daawuda alayhi salaam bur yàlla ne inna saxarna al jibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq yàlla ne ma daal di ko tàggatal la nga xamante ne mooy doj yi montagne yi ñu nekk ci sous contrôle nabillahi daawuda ñuy ànd ak daawuda di sàbbal yàlla di ko màggal di ko bàkk di ko delloo njukkal ci ngoon ak keroog bu jant bi di fenk alayhi salaam ndegem yow dafa am lañ la jox as tuut responsabilité est-ce que yaa ngi nangul sa borom ne yow jaamu bu yàlla nga est-ce que yaa ngi nangul yàlla ne moo la jox li nga nekkee ni est-ce que yaa ngi nangul yàlla ne mooy sa borom su ko defee tontu bi la mu mun a nekkee kenn ku nekk na ko xool yàlla ñu yàlla boole. defal ñu tontu bi nga xamante ne mooy la yonentu yàlla Daawuda comprendre ci digganteem ak boromam subhaanahu wa mbokk yi yenn jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot dañu ñëw si xadiisu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mu di ñu baaxe ne ñu xam ngeen ne buur yàlla suñu borom tabaaraka wa dafa bëgg doomu aadama bi rawatina jullit bi muy àndandoor ak nit ñu baax ndax àndandoro ku baax day am jeexintal ba muy am ci sa jëmm ji yow mi ak nit ñu baax ñi ba tax na yenentu bi sallallahu alayhi wa daf ñu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tusaaxibu illa muminan wala yakulu taamaka illa taqiy naam axrajahu abu daawuda fi adab wa fi targhib min xadisin ibnu saidin alxudri radiallahu anhu wa xasanahu fi saxiix aljaamia naam mbokk yi yenn jaami yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot xadisu saxiix mooy xadis bu wér la yonent bi sallallahu alayhi wa ñu baaxee ci maana xadis bi mu ne ñu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisu abi xudri abi saidin alxudri radiallahu anhu nee na yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu laa tusaaxib illa muminan bul nangoo ànd ak kenn ku dul ki gëm yàlla naam wala yaakul taamaka illa taqiy bul nangu kenn jëfandikoo sa ñam ku dul ku ragal yàlla naam kon bu ñu àndee taaliqaat ay commentaire yu ndaw ci maana xadis bi ci waxtu su néew yu ñu cërale ni xanaa dañ koy tënk rek jaar jar yonent bi salaa sallam laatu ni illaa muminan bul nangoo ànd kenn ci say àndandoor ku dul ki gëm yàlla ki wéetal yàlla bañ bokkaaleek yàlla ci kàddu bañ a bokkaale yàlla ci melokaan bañ a bokkaale yàlla ci jëflante bañ a bokkaale ak yàlla ci lenn waaw bay ànd daal nanga nga ànd ak ki gëm yàlla koo xamante ne day wéetal yàlla ci wax ci geste ci melokaan ci lépp waaw wéetal yàlla ci biir ak ci biti moo tax mu ne laatu saaxib illaa muminan bul ku dut ki gëm yàlla dara na ànd ak ku gëm yàlla wéetal yàlla waaw ndax dina tax sa gëm yàlla gën a am niveau dina am sa gëm yàlla mën a sàmm dina tax sa ngëm yàlla mën a ñoŋ boo naree jàdd dina téye sa loxo ne la ah mbokk lii nga def nii de du nii nii lañ koy defee nii la ko alquran jàngale nii la ko yonent bi tëralee sallallahu alayhi wa moo tax mu ne booy dem bay tànn àndandoor moo xam ku jigéen la moo xam ku góor la mu ne la laatu saahib illa muminan bul àndandoor ànd kenn bul nangoo àndandoor ak kenn ku dul ko gëm yàlla wéetalu yàlla waaw booy dem bay joxe ñam nag nee na wala yaakulu taamaka bul nangoo kenn jëfandikoo sa ñam bul nangoo jox ñam kenn ku dut illa taqi ku dut ku ragal yàlla ku ragal yàlla wu dee kooku muy jëfandikoo sa ñam xamal ne bu julli buñ ko fayee yiw ci julli boobu mu julli yow mi ko jox ñam ba mu am kattan mu taxaw julli yow dinga am wàll ci loolee bu ci jëfandikoo lépp lu baax buñ ko ci fayee yiw yow mi ko jox ñam bi mu am kattan bu toll ni mu jëf-jëf ju baax jooju xamal ni yowit dinga am yiw ci ñam bi nga ko jox axrajahu abu daawud hadis bi abu daawuda moo ko génnee fii adaab ci téere bi ñu naan adaab wa tirmisi yi fii zuhd tirmisi génnee na ko ci téere bu ñu naan zuhd naam min hadisin jëlee nañ xadis bi ci abi saidin alxudri radiallahu anhu ci saxaaba bi ñu naan abi saidin alxudri radiallahu anhu waaye nag wa xasanahu albani albani rahimahullah cheikh nasir al albani rahimahullah moom it wéral na xadis bi ci téere bi ñu naan jaamia mbokk yi kon bi léegi nañu xam ne bu ñu demee bay joxe ñam nañu joxe suñu ñam ci ñi nga xamante ne dañoo am ragal yàlla dañoo takkook ragal yàlla képp ku takkook ragal yàlla dañ ne kooku boo ko joxee sa ñam ah doo ko rëccu waaw ndax lépp lu fa jëfandikoo ci xeetu jëf ju baax xamal ne dinañ la bindal yiw ci sa téere jëf kon nañu bàyyi xel ko ñuy jox suñuy ñam nañu bàyyi xel ko ñuy yekkal nañu bàyyi xel nañuy jox suñuy ñam waaw su ko defee ñu xamee ko nii kon ndeke joxe ñam dina tax a doomu adama yiw naam dina tax a doomu aadama yiw waaye ana kan nga koy jox moom la la yonent bi joxoñal fii sallallahu alayhi wa sallam mu ni la wala yaakulu taamaka bu kenn di jëfandikoo sa ñam illa taqi ku dul ku ragal yàlla waaw nee na la nag booy dem bay ut àndandoor nee na na nga àndandoor ak ku baax sallallahu alayhi wa sallam lii la jàngal ci xadis bi nga xamante ne mooy xadisu abi saidin al xudri anhu wa ardah mbokk yi yal nañu yàlla may dégg ak topp yal nañu yàlla may dégg ak topp ñu jiital tamit yónni leen assemblée nationale di suñu mbokk député yi yal na leen yàlla wooyo falal yen bi yal na leen yàlla jàppale yal na yàlla woyofal yen bi seeni loos ba ñu mën a liggéey lu kawe seeni njort yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñuy wax ci maana xadis xadis ba ñu jëlee ci Omar bun Xataab radiyallahu anhu nee na samitu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innama al acmaalu binniya wa innama likulli mri'in ma nawa sallallahu alayhi wa sallam nee na jëfu doomu aadama bi nu munti mel mu ngi aju ci yéene bi te kenn ku nekk la nga yéene ci jëf ba ngay jëf moom lañ lay fay gis ngeen kenn ku nekk ci ñañu jiital yóbbante leen ci pincum ndaw réew mi ñu ngi leen di yóbbante di leen laayee biir fekk yéene yaa ngi sell fekk yéene yaa ngi baax fekk xol yaa ngi leer inchaa summa inchaa du ñàkk buur yàlla tabaraka wa dina leen càppale comme ni ko waxee ci xadis bi innama li kulli mri'in maa nawa kenn ku nekk am na lamu mu ci liggéey ba ngay liggéey kenn ko nekk am na lu muy fas ci xolam ca loolu mu nekkee ndegem yàlla xam na ne yéene bi sell na liggéey bi nu muy antoo ak na ko yàlla di jàppandalale ba mu kawe sa njort loolu buur yàlla mooy ki ko xam mooy ki koy féetee moo tax mu ne ñu ci alquran in ya'lamillahu fi qulubihim xayra yu'tikum xayra ndéem yàlla suñu boroom xam na ne xolu yi de bu dee dafa làmb ko yiw yàlla du leen jox dara lu dut yiw kon nga dégg ci beneen contre sens contraire bi bu xol bi nëxe xol bi bu lëndëmee xol bi bu fekkente ne am na leneen lu fa nekk lu dut yiw loolu dongoo ngay am su ko defee nañ leen beesal xol yi tàppe xol yi comme suñu maam jubaax di maam Abdul Aziz Sy Dabakh rahimahullah lam doon wax yan na yàlla tàppe xol yi yan na yàlla tàppe xol yi yan nañu yàlla defal suñu xol ak suñuy xel muy xelaat lu baax muy bañ a xelaat lu ñaaw nasaluka allahuma yaa muqallibal qulub thabbit qulubana ala taatik yaa muthabital qulub thabbit qulubana ala diinik allahuma ya rabbi ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa nicmal mawla wa nicmal nasir mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñooy joxe xibaar ñoo ngi ni taxaw ñu fas yéene leen jébbal béréb bi incha allah lu jub si kàddu gi ñu sandeeku buur bi tabaaraka wa lu si dëng na ñu ngi koy jéggalu di ñaan yàlla suñu borom yal ñu yàlla boole jéggal amin ya rabbal alamin allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih aimmatana wa wulata umuurina allahumma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan alamin baarakallahu lii walakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani llahu wa iyaakum bima fihi min al ayati wa dikri alhakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha lii walakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu